sëriñ Modou Awa Balla Mbacke doomi maam Thierno Birahim Mbacke ak soxna Awa Balla Diop mu ngi feeñ jamono ca guy ngura wetu Mbacke Bawal la nekk ci atum 1896. baayam joxoon ko seexul xadim ngir mu jàngal ko waaye sëriñ bi daal di koy yebalaat ci waajuram ngir mu jàngal ko def ci moom ab yar. xamal ko ni ko lépp lu di njariñ danga ko am te loo gis dara lu lay lor moom ak sëriñ Modou mustafa Mbacke sëriñ falilu ak sëriñ Baara moom la waajuram wu góor boole woon doon leen jàngal maam Thierno Birahim. mag magi sëriñ seex awa balla mbàkke ji nekkoon lool borom gis-gis bu yaatu ci atum 1943 bi waajuram bu góor bàyyeekoo génn àdduna mu daal di koy wuutu ci xilaafa gi 1952 jàpp 1954 mu daal di sumb ab liggéey bu am solo foofee ca daarul moxti mu taxawal benn poste téléphonique ak benn poste télégraphique ak service postel ak benn gendarmerie ci atum 1966 mu daal di taxawal liggéeyub jumaay daarul moxti waaye atum 1972 jàpp 1973 liggéey bi da daal di taxaw mu daal di joxe ndigal ci bépp taalibe bu ci bëgg a barkeelu mu daal di koy jaarale ci rakkam Serigne Abdoul Khoudous Mbacké moom liggéeykat bi ràññeeku woon lool ci wàllum liggéey ba président Senghor daal di koy takkaloon médaille ngir liggéeyam bu rafet mu nekkoon boroom xam-xam daal di ci ay dëkk yu bari ak ay daara ñu man cee lim yu ci mel ni Medina Yabal Karatel Njaareem ak Daaru raxmaan ak Sarsara 28 décembre 1949 mu daal di inauguré forage foofee ca Daarul Muxti soxna Momy Mbacke moom Seexul Xadim lañu ko dénkoon mu nekk soxnaam fanweeri at ak juróom-ñaar laa def ci xilaaf ak waa juróom laata mu fiy bàyyeekoo ci atum 1982 rakkam Serigne Abdul Khoudous Mbacke moo ko daal di wuutu ci atum 1982 ba atum 2003 ginnaaw bi Serigne Seex Xadim Mbacke 2003 ba 2016. ab Abbas Mbacke wutu ko 2016 ba 2020 Serigne Bassirou Anta Niang moo ko wutu jamono ji di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne du Awa bala Mbacke yàlla yokk ay leeram te doolu ñoo taaf ci barkeem.